orienté bu ngeen tel âge dans le secteur de la santé la les ménages comment on les gère pour ne pas qu'il y ait des divorces parce que c'est quelque part une partie de la folie ce divorce amee amna yo xamné aussi lu jëm suñu culture religion ñu affecté len ko le secteur de l'information on prend les bonnes et sur informations mhm. bu avez information informations xamné sont danger la mhm. ñom état des nek ak ñom liggéey ñom envoyé les état dans un courrier état xool ah, information bi bu len ko mëna déstabiliser gouvernement wala mëna déstabiliser sëriñ bi wala mëna déstabiliser clan bi wala ethnie bi alors qu'est-ce que c'est à faire ñu jël ko décc ko té ko ci suuf waxe ko ci benen forme mhm. c'est ça ar loolu la état war def pour tay ñu mëna xol les journalistes waroo ko xoqatal mhm. parce que xoxatal ko lutax nga gañe ko xamna bu baax limay may wax mhm. seetal tay bu gars yi doon coup d'état tay ji fan la ñuy njëkk a jël mais ah, média la ñuy njëkk jël pourquoi ñu njëkk jël média c'est parce que li ñuy def ñu ngi ko bëgg wax ñëpp. ñëpp dégg. Mhm. kon l'importance de média ku ne war na ko xam moo armée benn la. Mhm. donc loolu mooy wax ji nañu teg waxu média yi ci suuf. Mhm. affaire milliards yi ñuy wax naan on les avait gratuitement donné ça. Macky Sall un président de la République man de bi may nekk armée dama dégg ñu ne un président de la République bu waxee wax. décret la. président de la république nee bu xasee wax rek. Mhm. décret la kon donc wax na. Mhm. décret la tey ñu war a baal ñëpp li ñu war a baal. Mhm. mais su amee ay poursuites rek c' parce que quelque part y' a des y' a des malaises. et on pourrait l' éviter. voilà si loolu rek laay ñëw fi yow convocation suñu naataango yi nga xamante ne ñoo nekk ci presse bi euh, te liñ leen convoqué euh, muy article yi nga xamante ne moom lañ publier de bu ñu demee bay remonté ci ay source est ce que journaliste aussi war nañ ko euh, heurtel ci joxe source.

mbir mo gis rek ci aduna dañ ko dañ ko encadrer mhm. normaliser ko mhm. structurer ko mu am nu muy doxee mhm. euh, prétexte bi nak moy moy dañu dañu dañu dañu convoquer code la presse à son article cinq euh, ci li nga wax noonu nga xamné da fay may euh, journaliste bi wala métier assimilé yi comme niñ ñu koy waxee liberté ci source nga xamné ne kenn du ko ko xagn bu ko soxla dafa wara dem fim ko wara a jël ñu jox ko te duñ ko ci neubal dara duñ ko ci xagn dara waaye ci loolu dafa am fu ñu ko yemale. Mhm. ndax lu mel ni ay secret défense comme ni nga wax léegi défense euh, nationale ak yoo xamante ni ay secret d'instruction la. Mhm. yooyu tamit dañ ne ko lii du sa cër ba ko fi. Mhm. Euh, euh, loolu nag mooy problème bi ban limite. ngay am par rapport ak information bi nga war a traité. Ndour mu ngi koy wax léegi ci ci ci ci ci ci benn contexte tey Kandé. c'est lui qu'il s'agit nous hein. mm-hmm. moom nous nous jël ñu affecté ko mm-hmm. ñu affecté ko muy général euh, waxuma loi wala texte mais euh, d'ordinaire mm-hmm. wala de coutume nous doon xaar général ou un unimel retraité ñu yóbbu ci mission diplomatique euh, loolu mu xaw a nekk jiixi jaaxa ci xelu nit ñi. Mhm. mais information boobu dafa am fu mu jógee. Mhm. ñoom ils ont repris des informations heureusement ils sont revenus sur des publications sur des posts d'erratum ak yooyu. Mhm. expliqué ak yooyu noonu. mais booba mbir mi xew na ba pare. léegi man sama sama sama laaj mooy pourquoi kande pourquoi le général Kandé un homme de terrain quelqu'un qui est dans l'information. dans les plans les stratégies plans de guerre euh, dans les combats pour moi, nous na nous placer placé diplomatie nangam parce que c'est quelqu'un qui il a engagé un combat qui connaît le terrain qui connaît ses hommes mhm. qui a commencé à marquer ses empreintes dans le sud nous allons au moins déroulé. dérouler ah. il est encore jeune. je crois que il est en activité. Mhm. c'est il est encore jeune. est même si c'est pas écrit c'est vrai. est mm. mais pourquoi mais justement c'est la question que. c'est voilà lolu nak lolu nak bu fekkente ni ñom dafa am lu ñuy anticiper. ba tax ñu ñu génnee bâton bon au delà de fiscalité bi ñuy menacer ces patrons de presse là donc vous faites mention tout à l'heure convoqué ay nit ci ci ci ci ci dig lan la day tax nit ñi gën nous pousser ah. c'est une enquête pour dem au-delà de de l'apparence mm-hmm. lan moo nekk le cachet bi nekk ci ginaaw décision yé mm-hmm. ak micmac yi yi di am mm-hmm. mais est-ce que est-ce que bu sax confidentialité amati na fa du moment où ñu ñëw génn dem ba ni euh, le général lui-même dafa euh, euh, euh wax ni ki dina attaquer décret boobu wa peut-être est-ce que fofu sur la forme je <laughs> pense pas que confidentialité am am na fa mais le pourquoi donc c'est ça euh, bu mhm. c'est-à-dire que enfin quand la grande muette se met à de la sorte ça c'est un problème ben bi euh, les gens vont se poser d'abord la première question à savoir le pourquoi. pourquoi superficiel mhm, ne Sonko bëgg renégocier ay accords militaires nangam nangam les gens dañuy gën pousser dans ce sens pour comprendre pourquoi Sonko veut à deux mois euh, les urgences sont là il avait annoncé des diminutions de, du coût de la vie mm-hmm. il avait annoncé beaucoup de choses euh, on les attend sur ça mm-hmm. nous démarrer ben assise c'est pour réformer beaucoup de choses euh, moderniser mm-hmm. les gens les attendent d'abord sur ça les meilleurs moyens cest avec Sonko euh, pourquoi il a ouvert autant de fronts. Mhm. On n'ouvre pas autant de fronts en si peu de temps. Pourquoi ouvrir autant de fronts Très dangereux. Mhm. Yangi avec les importateurs, mhm. yangi justice bi, euh, yangi ci ak société bi, Yang ak euh, marchand ambulant Yang a euh, société voilà. <laughs> il y a beaucoup de ce gars-là qu'est-ce qui se passe avec euh, les les les les voleurs de deniers publics préparer parce quoi des questions yo xamantene Amina <laughs> wax mhm. ak mhm. Ousmane Sonko bu avez ci gouvernement bi mhm. Sénégal dina neex bu wax ni comprendre <laughs> parce que Sénégal dañu am ben dañu am ben ben ben esprit. Mhm. buñ la togné sax bo xeexee ñu ne way waro wona a xeex. waaw. parce que ñun non lañ tollu quoi waal ko. Mhm. léegi tey man mënuma comprendre ben Ousmane Sonko opposition muy xeex di xeex. bo jot ci li nga xamné mom la bëggoon mu continué wa <laughs> di xeex cette posture mais après nekk ci mom ba légui après tout. Mhm. mais quelque part dañ naan mais qu'est-ce qui ne va pas. quest qui ne va pas soo xoolee aléatoire bi am ni lu tax Kandé riposte mais am na lu tax de. Mhm. du ay détail de. Mhm. Kandé bi muy nekk Casamance est-ce que xam ngeen Kandé bi muy nekk naa lieutenant lieutenant ci la commencé di di jàmmarloog rebelle yi mhm. xam ko bu baax. force spéciale bu njëkk moom bi muy nekk à la tête de force spéciale bu njëkk ay ay beere bat paara lañ sol loge Thiès ci ginnaaw euh, polytechnique loolu yàgg na donc tey boo xoolee. benn Kandé boo xam ne boo ko xoolee bokkul sax tey bu Kandé boo ko gisoon mu sol yëre civil da ngay ree mm-hmm. parce que. xamu ko day bizarre. na na muy war a woo soo sax du ko xam. il ne ko que les blousons. Mm-hmm. et la tenue mm-hmm. militaire. kaay ma wax la benn affaire. Euh, man dafa ñëw benn événement fii camp Liberté 6. moo am benn événement foofu. ñu tase fa. ñëw rek mu ne ma hey <laughs> séeréer baa ngi nii de maa ngi lay gis si tik kii bi rek Facebook bi rek boobu TikTok amagul. ma ne ko kaa ñu photo mu ma nag maa ngi Quelle xoolal la personne là. Ma photo yow photo bi fexeel ba bu ko internet est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que gis nga kooku. fexeel ba photo bi bu ko internet non moi Gérard bàyyi ma dugal ko parce que man non non ne non non non non non parce que man je ne suis pas dans ça moi je suis là. pour la sécurité du pays. Donc quand tu affiches ma photo avec tes trucs que tu fais là, après les gens vont dire que oui, c'est moi qui t'ai envoyé. Et je ne suis moniteur de rien ne mets jamais mes photos sur les réseaux sociaux et effectivement noonu la demee defewu ma Tay, Kande, avant ñuy wax ay waxam Ousmane Sonko ci opposition bi la nekkoon ku ne dégg na li mu doon wax général Fall qu'on ne dégg na Bap Pape pareil offensé ko Gars, yépp di déglu ñépp suñu xamee mu général Moussa Fall c'est grâce à Ousmane Sonko dégg ngeen ko ni ngeen ko déggee ci moom. tey bu yéegee ñu jékki jékki jékki gis ñu ne cappit Moussa Fall. ñëpp ne non bu leen ko laal nangam nangam nangam ñu ne ko cappit boo yi génn te gis nga lu naar bu ndaw bi wax rek ci bu mag bi la ko déggee. ay non moo fi rey di ñii nangam nangam dañ ko war a yóbbu CPI loolu dañ ko war a arrêté dañ ko war a tëj nii nii au trahison ba xoolal di woon ay photo bi muy nuyoog moom ci biir palais bi alors les tension montré que daa dafa war a am réplique. Mm-hmm. Ousmane Sonko. ñu demaat ñu toog tey ñu ne wéy am na benn général dañ ko war a miite pour mu dem. est-ce que xam nga ñaata colonel ñoo nekk Sénégal. waroon mën yu gën a jeune yoo xam ne tey. Mhm. ñoom waroon nañ mën a dem remplacer nii euh, ki nekk foofu te ki ki fa nekk sax il est bien la ba tout le monde sait il est bien là-bas léegi man. bal leen ma deux secondes rek parce que bëgguma affaire bi échappé dinañ gën a dugg dañuy damay échappé am naa dimbali ma damay man <laughs> li ma gis mooy mhm. le colonel Ndaw laa mhm. moom bi gars yi di génn di xeex di taal dëkk bi mhm. moom fan la nekkoon foofu la position baaxoon mu génn wax ñu ne comportement bu armee am wala police am gendarmerie am moom alerté na leen mais tey ci biir discours am déglu leen ko bu baax c'est contradictoire li mu wax daf ni général dafa wara dem ça c'est le règlement militaire mm-hmm. Mm-hmm. il devait exécuter après rendre compte mm-hmm. loolu moy deug loolu la armée wax da exécuter après rendre compte mais les mom après bu waxé loolu ba paré mu tourner mais qu'est-ce qui est derrière kon ah, kon qu'est-ce qui est derrière tout ça qu'est-ce qui manipule entre l'État ou mais sans parler de de léegi yow ki nga xam ne moo gérer stabilité bi ba ñiy jot dëkk bi ñu doon wax fi ay force occulte ñu doon wax fi ay rebelle effectivement gars yi jàpp nañ fi rebelle mhm. ñëpp gis nañ ko rebelle bi dégg nañ temps yi libéré nañ ko gars yi di ko dégg loolu yëpp di dox ñu di ko dégg mais kon donc état bi fi nekkoon réussir na benn côté fexe na ba dëkk bi basculé wul ñoom aussi liñ bëggoon a jot jot nañ ko mhm. dans les bonnes formes gars yi voté ko ñu jot ko mhm. mais léegi yow kooku nga xam mo gérer sécurité boobu foog na yow sa sécurité sax war nga ko mën jël pour mu gérer ko. Mhm. y' a un colonel bu ñuy wax euh, euh, euh, Kone. Mhm. bi mu amé problème ci affaireu Casamance bi affaire yi ba problème yi grave mais bu mu ñëwee fii xam na lañ ko def jox ko bureau. Mhm. ne ko togal togal fi day xey di ñëw ci bureau bi tok jàpp ñaar bu ngone mu wàcc dem buñ ko defoon Kandé sax mu tane mais Kandé à la tête des forces spéciales plusieurs formations avec les néerlandais man fekk na force spéciale fi ñuy def formation ma and ak police récap renforcement des capacités de la police nationale keroog la les force spéciales dañ doon bëgg a rey ner naande yi mais tey bu ma toogee man aussi man ma gis benn kàndi nii rek après mais fan la jëm après loolu peut-être après. dinañ dinañ xam ana balaa ñoo dem rek foog naa ubbi na boobu la presse nga xamante ne ci lañ naroon ñëw waaye laataa loolu rek dañuy dellu si waat ci suñuy naataango yu ñuy arrêté euh, ñu gis ne démb euh, CAP aussi def na benn communiqué am yenn naataango yoo xam ne ñu ngi koy fustigé di wane ni ki communiqué bi ñu def c'est trop légère euh, par rapport ak communiqué ba nga xamante ne moom lañ defoon moment ba ñuy jàpp Pape Alé Niang mm-hmm. te moom nii di Pape taxawoon ci de bi di euh, que document yi mu recettes c'est confidentiel avoué ko ba pare ñu japp ko euh, ci amone CAP niñ ci xadaré woon ak ak même ci mots yi ñu utiliser par mm. rapport ak qui ñuy arrêté demb c'est tout à fait différent parce que feulé dañu doon invité l'État mu mu ñu ñu ñu ñu nous ko mm. nu mu le plus rapidement possible ñu gis né ba tey nag euh, communiqué bi génn dafa melni sax dañu dañu dañu dañu euh, en quelque sorte yeddale yenn natango yi xamal len ni ki ba jël wala ñoo joxe information dañ ko war di xol di ko xoolaat source bi ak yoyu té feulé dañu waxoon que ni euh, am nañu droit journaliste amna droit génne information protéger source am et tout. sa gis-gis ci loolu. <laughs> Fatim man euh, fi may commencé moy que ni euh, dama japp ni dafa am ben contradiction bo xamantene ni mom mo am par rapport ak posture bi nga xamantene ni le régime actuel mom lañu am. Mm-hmm. parce que dañu gis ni euh, ci régime bi fi le régime de Macky Sall. Mhm. ñoom ci porté le combat de la liberté de la presse. bokk nañu ci ñi nga ni au Sénégal presse bi dañ mhm. presse presse bi euh, régime bi fi mayul presse bi ñu wax fu euh, ñu ñu am la la comme il se doit parce que peut-être jàpp nañ ni journalistes yo xamantene euh, euh, ni xeyna xëy nañ len euh arrêter nañ len ko ci melni Pape Alé mais euh bu fekkente ne loolu dafa am tay ñom ñu ñew au pouvoir mhm. ñu gis ni euh, moins de deux mois mhm. à la tête du régime ñu japp ay journalistes di convoquer ak ak ak garde à vue ak def yëf ñun dañuy japp ni rek euh fofu amna lo xamantene ni xeyna amna lu ci leerul ci ci ci ci bop askan wi mhm. maintenant concernant li nga xamantene ni moom waral wote gogo ak euh, li nga xamante ni waral coow li yëpp ma si parce que mon mënuñu am un militaire mon mot mhm. habilité euh, donc pour voir ci euh, mbir moom mais par rapport ak li nga xamante ni la presse je pense que dafa commission yoo xamante ne mhm. dañ leen fi pour ñuy chambre ak saytu li nga xamante ne non la presse bi di mhm. le traitement de l'information lan de war a diffuser lan la ñu diffuser mais nag bu fekkente ne dañoo gis ben Pape ñu tegoon ko fi parce que tout simplement dañu wax ni dafa exploiter ay documents yoo xamante ne ni confidentiel euh, côté gendarmerie voilà mm-hmm. justement moom mu génn confirmer l'eau ñoom ñu porter combat pour nous tey euh, ki nga xamante ne nii moom convoqué wala voilà justement euh, mom itam am benn liguey bo xamante amal na ci walu presse comme on dit il n'est pas tenu de dire fan la amé information bi wala lan moy ay source mm-hmm. mais je pense que euh, waron nañ ko meuna